mu ne yooyu melo bu ko melowutoon kon mbindee fii am duñu am ndax lii am moom kuy dund te amee sañ-sañ te am xam amul man rek yaa mën a sàkk lii kon bu loolu amutoon kon mbindéef du am wattaa lii topp ja fi sittil qadaaya ci juróom benni atte yi baatilul neen la xat xan ci lu dog muqaddamun shart idan boobee mumaathilun aji yamonte la ak jawaab waaw daa wax ne law yi nga wax yépp day juróom benn law bu ne doonte nangam ji mooy sarat kon nangam mooy mooy tontu la léegi bi nga ne bu fekkoon ni yàlla mën naa dem ba yàgg mu jeex ah kon day ñàkk door ñàkk doore fenn nga nga waxoon moo amut li nga ne doonte yàlla mën naa jeex loolu mooy sart la nga tontoo ne la nga tontoo ne kon day ah ñàkk doore fenn nga nga waxoon moo amut loolu mooy jawaab ji yooyu yàlla lu ci nekk la wax ne ñoo yemoo dara dañ ko wax ngir jàng la rek waaye yàlla melu lu sax a sax la amul werante law yëpp noonu lañ ba nga ne yàlla de bu fekkoon ne nekkul di amul jiitu maanaam ñàkk dale fenn loolu mooy sart bi jawaab ja mooy ah kon day dañuy wax ne kon daa sos rek loolu mooy tontu li nga ne woon ah, moom de bu yemoon mu ah, loolu mooy sart nga ne kon ba tey lu sos lay doon ndax mu néef laa sosoon fekk nga ne moom de bu fekkoon amee wutoon melaw doylu sarta ngoog tontu la mooy kon mu aajowoo kon mu mel ni mbindeef daal di aajowoo ni mbindeef aajowoo fee nga ne bu nekkutoon kenn tontoo ko ne ah kon day du man dara du sañ du man waaw law yooyu nga wàññi ba muy juróom-benn la wax naa dañ ko wax rek ngir jàngale waaye sart saak jawaab ja mooy doonte nangam jàng la koy tontu yëpp rek hmm, wax yu nu njàng la rek la waaye ak ci kaw nattale waaye dara amu ci wa samhu dégg wal basaru ak gis wal kalaamu ak wax turaamu def na leen sàkku naq ci ak toxal max kamaali ànd ak matu yàlla nee wax ki nga wax ni yàlla dafa amee ak dégg amee ak gis ak ak amee ak mën a wax loolu moom dañ ko toxale ci alxuraan alquran saxal ko ak hadiis yonent bi gis nañ ba tàyyi inna allaha samihum basir ak wa kallama allahu Muusa ni mel noonu bari na ci alquran ba noppi itam nag ñu ñu leen di tuddee sifaatul kamaali lillahi taala maanaam melay mat la ci wàllu suñ boroom nga xam nga ba suñu boroom melowutoon nii day melowoo seeni safaan xam nga ku amewul ak dégg day amee ak tax ku amewul ak gis day amee ak ngumba ku amewul ak ak mën a wax day ame ak luu waaw kon nag ndegam melo yi bu ko melutoon mel seeni safaan te seeni safaan xeeti manqué la moo tax ñu tuddee melo yooyu sifaatul kamaali lillahi taala law istaxaala doon te jomboon na mumkinun mbindeef aw wajaba wala mu war aw jaba kon mu waral albal xaqaa'iqi walbati dëgg-dëgg mbiri lu zooman ci ak war xam nga da ngaa waxoon ni hmm, rek la maanaam mën naa mën naa ñàkk mu ne la nag loola bul ci jóg ndax boo nee daa jomb mu doon wax ju yàqu-yàqu ndax ñun ñu ay mbindeef lañ te xam nga lu jomb mooy lu mënta am te ñun ñu noo ngi ñu toog boo nee itam mbindeef kat am gi mu am mënta ñàkk ni ki gis gi gis rek mu toog nga jàpp ne moom suñu am gi daa mënta ñàkk ñu la déedéet am na yeneen yoo xam ne mënoon na am xel nangu nag mën a amam te amut waaw booy jàng mawaahibul quddus da nga gis ne koo xam ne daa dund ci am njulit ba dee ci njulit ga waaye jamono yi nga xam ni moom lay dund xel nangu woon na mool batiku soppiku bi yéefar soppiku bi yéefar ni ki abu bakar koo xam ne itam daa dund ci kéefër ba dee ja ni ki abu jahl ba muy woon na mool batiku gëm lu ci nekk mënoon na am te amut xam nga ne kon loolu maanaam boo déggee mumkin aji jàppandi rek la baat bii firi mumkin mooy lépp rek loo xam ne mën naa am xam ne xel nangu na ni mën naa nekk loolu rek mooy mumkin lool nag da ngay jàpp ne hmm, lépp lu mën am jaayis rek la maanaam coobari yàlla mooy ñëw aman lay ñàkkal waaye bul ne hmm, mbindeef daa nekk lu jomb jooju wax mu nekk wax ju yàqu yàqu jooy teg bët di gis yenn mbindeef itam mu tax nga daal di wax ne am ngi mu am mënta ñàkk ndax bari na yeneen yoo xam ne yu mën a am la te amut ndax yàlla moo soob seenu bañ hmm, moo tax mu ne boo nee mbindeef daa jomb mbaa nga ne mbindeef daa war a mënta ñàkk su boobaa da nga wëlbati dëgg-dëgg mbir yi mu safaanoo muy da nga ko labaje lool labaje goo xam ne kenn du ko nangoo loolu mooy lu aju ci wàllu yàlla yi jigu dana war li rus li ñeel yonante alkiraami ña di way tedd as sidduxu dëggal amaanatun ak kóolute tabliixuhu mooy seenu jot li itam yaxiqu dana waaw daa wax ne yonante yi am na ñetti melo yu sax ci ñoom melo yu mat la mënta ñàkk am na yetti melo yu jomb ci ñoom mënta am am na lenn loo xam ne mën naa am ci ñoom mën naa ñàkk ci yi nga xam ne mënta ñàkk ci ku yàlla yoon yi mooy faaw mu dëggal mooy dëgg rek lay wax du wax mukk lu amut ñaareel ba mooy faw mu sàmm wóolu ku yàlla wóolu ba du def lu yàlla araamal du def lu yàlla sib ñetteel bi mooy faw mu jot li nga ko jot loo du ca manquil dara du ca yokk dara yett melo yooyu mënta ñàkk ci ku yàlla yoon yi bu fen mu xaalul lu jombal la wal man xiiju ak def lu ñu tere ka adamit tabliixi ni ki ñàkk jotal nga yaa dëkki aji ñaw daa wax ne yetti melo yu jomb ci ñoom mooy safaanu bi yee fen fen jomb na ku yàlla yoon yàlla ku yàlla yónni du wax mukk lu ñaar bi mooy def lañu tere waaw ku yàlla yónni du jàdd mukk ci yoon du jàdd mukk yoon ci genn wet ñetteel bi mooy ñàkk jotali mooy nëbbu du nëbbu dara ci lañ koy jotali mu des nag li nga xam ne moo daggan ci seen wàllu mën a mën a ñàkk mooy yeejoosu dana daggan fii xaq yi moo ci seen àq kullu xaradin gépp xarad xarad wala fi noonu lañ ko waxee rek waaye nee naa la mooy melo woo xam ne mënta taxaw moom dong faaw day taq ci jëmm te misaaloon naa la ko léegi ci yeewu toog dal ak xiif ak mar ak noppaloo sonn ak naqara mbég yëpp muy bare bare loolu xarad la laysa mu addiyan ngoog du aji joox li naq si jëm ci ak manki man nga ne lay soomu àddiyeen ngoog du aju àggale li naq si jëm ci manqué nee li nga xam ne nag moom dañoo wax ne jaayis la ci képp ku yàlla yoon yi mooy wépp melo woo xam ne gis nga ne dana dal nit ci kese yi te comme dal du tax mu wàññi sa daraja du tax ñu lay daw mbaa dara rek xamal ne loole ni ñu dale nit ci kese yi mën na koo dale yonente yi mu misaale ko kal maroon yi ni ki tawat xam nga tawat day dal nit ci kese yi waaye gis nañ yonante yi ba tey mën na leen dal moom daana leen dal sax ñi bokk ñoom jamono gis nañ loolu mu leen dal ba ci yonante bi tawat ji ngéen génnee ci àdduna ak lu ni xiif ak mar ak lu mel ni xeex ak xuloo ak lu ni ñàkk ak am ak lu mel ni mbég ak naqar daal yooyu yëpp rek waaye nag loo xam ne moom mm, day tax ñu lay daw mel ni tawat ju tax ñu daw ko ni ngaana wala cité moom du yàlla du leen ko teg ndax li mu leen yónni ñu war woote ñu wuyu si leen loo xam day wàññi seen daraja itam ni ñàkk mën a am doom li ñuy wax yoom ba tey ma mel noonu ak xeet wala métier wu métier wu ñàkk solo yooyu moom duñ ko def yàlla dana ci musal képp ku yónnee loolu lam yekkoonoo doonte nekkuñu woon saadiqiina di way dëggal la lazima kon war ay yekk jiba bu fenee al ilaahu buur bi fii tasdiqihim ci seenu dëggalal li nga xamal ne yonante yi li lay xamal ne yonante yi wax nañu dëgg mooy yàlla mi leen may ay muhjisa ay muhjisaat ba tax ñu gëm leen Hmm? may gi mu leen may ay mujisa daa wecci daa wecci mu ne woon moom yàlla kii kat maa ko yónni lu mu wax ci man la ko jëlee lu mu jëf ci man la ko jëlee ndax xam nga bu ñu doon wooteel yàlla te yàlla yónniwu leen te leen di gàccaayal waaye du leen may ay kiimtaan yu tax ñu gëm leen ndax xam nga mujisa mooy loo xam ne mboolem doomi aadama ci des kenn mënu ko ca day doon xotti baax goo xam ne kenn mënu ko ca mel ne mel ne xaru weer wi ki ngay jàng ci alxuraan iqtarabati saa'atu wanshaqa al-qamar lu mel ni loolu ka ko yàlla may day fekk muy ko mu yónni nar ñu gëm ko waaye bu dee koo xam ne day woote rek ci lu ci lu ci loo xam ne du dëgg suñu borom na koy gàccaayal ñu toroxal ko waaye doo may kiimtaan gi tax ñu gëm ko kon nag kiimtaan yi leen may moom yàlla ñoom yonante yi moo wecci mu ne woon kooku saab jaama lu mu wax maa ko wax loo lu mu jëf ci mën la ko jëlee moo tax mën a indi ngir moo jisaatuhum seeni kiimtaan taxaw lii wax yàlla wa barra te mbir moom baax na ne sadaxa dëggal na haadal abdu bi lay jaam fii kulli xabarin ci bépp xibaar waaw nee na seen mujisaat yi dañ yàlla may mooy wecci borom borom bi ne woon saa jaam boobu day maa ko yónni topp leen ci moom lu mu wax ci man la ko jële lu mu jëf ci man la ko jële lawuñ tafaa doonte dàqu woon na at tabliixu jotal ga aw xaanu wa ñu wor xotima kon war a leef ay la ba bu dee xiwal bëti alman xiyu la tere taaxatan mu di ak topp lahum ñeel leen waaw nee na bu fekkoon ne ab yonante mën naa war yàlla ba def lu yàlla araamal ba lu yàlla sib day mel ne kon yàlla moo araamal ba noppi mbaa moo sib dara ba noppi ne def leen ko nga xam nga suñu borom moo ne yonante yi maa leen yónni lu ñu wax mën lu ñu jëf ci mën lañu ko jëlee su boobaa nag bu leen seetaanee bañ jaar yoonam ba def lu ñu araam ba def lu araam ba ñu roy leen ca mbaa lu ñu sib ba ñu roy leen ca day mel ne kon moom yàlla moo araamal mbaa moo sib bool ba noppi nag wëlbatiku ne def leen lii ma araamal ba def leen lii ma sib loolu moo tax yàlla moom ku yónni du la seetaan mukk ngay jàdd yoon faawu ci yoon rek ngay aw ñàkk ngay itam xam nga lu araam la ba noppi itam bu yàlla xamee ne kii bu ko yónnee di ko jot loo di jot waaw ba tey du ko jox ndigalul jot li mooy du ko defub yonante jawaasul araadi daganuk xarad ya alayhim ci ñoom xujjatuhu awlayam wuquuhuha moo di seenu dal bi him ci ñoom yonante ah, li nga waxoon ne mboolem li dal doomi aadama mën na leen dal bu fekkee du wàññi daraja du tax ñu lay daw loolu mu nee na yomb naa layal mooy ñi nga xam ne ñoo fekkoon yonante yi ah, jenn jamono ñoo fekkante woon ñoom ci jamono dañoo jàkkaarloo woon yooyu mu leen dal li ki ñu gisan yonante bi fekkee moom jenn jamono ñu bind koy téere gannaaw bi ñu koy jàng gis nañ nam daan xiifi nam daan mare nam daan nelawe nam daan yeewoo nam daan yëngutoo nam daan dale nam daan xeexe ah, nam daan am lente kenn ba ci xuloo wala ak mboolem xeet yi dal doomi aadama tawat ak wi rek ñàkk ak sàmmaan ak yëpp yu bare bare rek naa yëpp rek moom lu mu jàkkaar loolu loolu yomb naa layal xikmatuhu njariñam nag tasallin moo di ak miise bihim ci ñoom boo waxee wuquuxa bihim boo waxaatee tasallin xikmatuhu da dangay baam waat bihim daa wax ne ñi yàlla fonke ñoom yonante yi nga xam ne ñoo gën màgg ci kaw suuf ci jaamu ñi te gis nga fi ñu jaar ci àdduna ni muy doy waar ne loolu day tax nitu kese mën cee musée maanaam nitu kese mën cee dalale ab xolam ci li muy jànkoonteel ci àdduna ndax yonante yi li leen di gaar ñaari wàll la leen li mooy xeeti métit yeeg tiis yeeg jafe-jafe ñi àdduna loolu nag mën nga ci musée ndax boo gisee jaar jaar yonante yi ni mu tiise yow nga nitu kese loo gis ci lu mel rek war koo mën a xam ne àdduna kon yàlla ko bindee noonu muy kërug tiis kërug jaaruwaay yu métti métti yeneen yi ci des nag yeneen yi ci des ci ci xarab yi nga wax mooy lu mel ne takk soxna ak lu mel ne jaay jënd ak yu demee noonu muy xeetu jëflante yi loolu moom yonante yi jëf bi ñu koy def dañ ciy jàngalaale doomi aadama yi nañu war a jaaye nañu war a jënd nañu war a takki soxna ak leneen ak leneen ndax fu ñu jaaree aw yoon la kon gis nga ne ab yonante ni ko yàlla yemaleen nit ñi rek ci loolu xéewal la ci doomi aadama wa qawlu laa ilaha wax ne ilaha amul benn buur illallahu ndara yàlla muhammadun muhammad arsalahu yónni na ko al ilahu buur bi yejjumahu dana boole kulla haadihi l mahaani képp ci lay kaanat nekk na moom baat boobu li daa ngir li xalaamatal imaani di mandargam gëm nee na laa ilaha illa allahu muhammad rasulullah nee na baat boobu ëmb na lépp li war a gëm ci lislaam ndax baat bu laa ilaha illa allah ëmb na lépp li war a gëm ci yàlla muhammad rasulullah baat boobu li muy gàtt gàtt ëmb na mboole yi ci des ci ñu war a gëm ci wàllu lislaam hmm. daañu ko leeral ci téerib mawaahibul quddus incha allah ñi nga xam ni moom la hmm, ba baat bi am ëmbee loolu lépp ni mu ko ëmbee lépp daañu ko leeral foofu bu yàlla moo tax mu loolu moo tax baat bi ñu def ko màndargam gëm maanaam boo dugg ci lislaam boo seeree baat boobu ñu xam ne yow mi bugg nga ci lislaam boo ci boolee fas ko ci xol bu boole ci nag mu daal nekk gëm gu mat ci biir ak bitti bu ko waxee ci làmmiñ yu kese te fasu ko ci xol ba nag mu daal nekk ak naafiq ba kere ñu gis màndarga mu ko feeñal waaye bu loolu yàllaay xam naafiqam googule waxiye moom baat boobu afdalu wujuhi zikri moo gën ci anami tudd yàlla yi fashxal na nga soxlaale bi ci baat boobu alxamra dund ga tafus kon nga tuufu bi zuxuri ci ndaxañteef mbaa nga ne ci ab denc waaw nee baat boobu moo gën ci lépp lu ñuy wax ci làmmiñ kon gannaaw boo ko waxee ba seere ci sa gëm yàlla ak sa lislaam na nga bari li ko tudd ci sa dund foo toll hmm. ba nga xam ne mu jaxasoo ci sa yàpp yaram bu ko defee kon da nga ci am njariñ lu rëy rëy mooy nga ci am tuyaaba ju rëy rëy boo dëggee ñu xamul liñ ci xamul daanaka ab dayoom nu muy tolloo faslun li ab dog la fi xawaaxidil islaami ci kenuy lislaam faslun wa taaxatul jawaarihi toppuk cër ya aljamihi boole ci wax wa fialan ak ci jëf huwa moom al islaamu ja ar rafiu jay aji yëkkati dafa am lu ñu wooye imaan am lu ñu wooye islaam ak lu ñu wooye ihsaan tam ñëw itam ci addis ba bu siiw ba siiw ñu koy teqale fii nag nee na boo matoo ci say cër jëfi bàyyi tere lu war a wax tam digle ko nga wax ko lu ñu wartu ko nga sori ko jëf giit noonu lu ñu la nga jëf ko lu ñu la aaye itam nga bàyyi ko bañ koo def kon xamal ne daal boo matu ci say cër jëfi ndigal yi bàyyi tere yi waaw ah, loolu moo tudd al islaam xawaaxitul islaam yi kenn yu lislaam nag xam suñ juróom la waajibaatu ñu doy war ñene kenn yu lislaam nag maanaam islaam dafa yaatu ndax lépp sharia dugg na ci biir waaye am na nag yoo xam ne ñoo ci gën a dëgër ca biir muy juróom ñu koy tuddee kenn ya xam ne bu fekkoon ne tey lu mel tabax mbaa yooyu xam ne kon lii mooy kenn ya ko téye waxee ñoom ashahaadataani ñoo jaari seere ya chartul baaqiyaati booy des ya maanaam seere yi benn koy jàppe maanaam shahaadatu an la ilaha illa allah wa anna seere yooyu seere ne yàlla rek ay buur muhammad tam nga seere ne ndaw la lum loolu danga koy jàpp mi benn ponk ci ponk lislaam moom nag li tax mu ne mooy sart bi ci des maanaam li fekk amut li ci des du mën a wér waaw waaw rek mu seere baat yooyu te fas ko ci xolam gannaaw ba nag bu jullee lay door a baax mbaa aji màkka mbaa asaka mbaa leneen waaye moom mooy sartu li ci des summa salaatu topp julli wa zakaatu ak asaka fil qitaa'i ca dog ya wa sawmu ak koor wal xajju ak aj xalaa mun war ka nga xam ne istataa àttan na ko nee na boo weesoo yaari seere yi mi benn nga ci boole julli muy ñaar nga teg ci asaka muy ñett asaka ci ya nga xam ne asaka war na ca mooy ñetteel nga teg ci koor weeru weeru ramadaan wi weeru ramadaan muy ñeent aj màkk ko mën na muy juróom loolu muy ponk lislaam al imaanu gëm nag jës mu mooy ak dogu bil illaahi ca buur ba wal kutubi ak téere ya wa rusli ak yonante ya wal amlaaki ak malaaka ya ma baasin ànd akub dekkal xaruba bob jege na wa qadarin akub dogal kadaliki ni siraatun siraat fa misaanun ak balaas xawdun nabi ak déegub yonante bi jannatun ak ajjana wa niiraanun ak ay safara dafa wax ne gëm moom bu dee ci islaam am na jàppandi lool mën ngaa takk ne am na juróom benn yoo xam ne moom la gëm ci islaam ndax da ko tas ñi ba mu bari rek waaye yenn yi mën nañoo dugg ci biir yi gëm ci lislaam moom juróom benn la rek ci gàttal mooy yàlla ci bopp muy benn ak malaaka yi muy ñaar ak téere yi yàlla wàcce ci yonante yi muy ñett ak yonante ci seen bopp muy ñeent ak bis penc mu juróom ak dogal mu juróom benn juróom benn yooyu moom la ñu gëm ci lislaam ko defee ne yenn yi mu ci dugal nii daa dugg ci bunt yooyu niki eh, mu tudd ak balaas beeg dégg bu yëpp mën ci gëm bis penc ko defee kon jàppal ne gëm ci lislaam moom mooy yii bu fekkee ne wax ne la ko mbaa nga jàngoo ko dégg ko nañ ko waxee nga nangoo ko noonu ci xol kon loolu gëm am na loolu mooy liimaan wa amal ihsaanu daal rafetal nag fa qaala wax na man ka nga xam ne daraahu xam na ko ne anta bu da moo di nga jaamu allah yàlla ka ko ba daanaka yow taraahu danga ko gis ndax in lam takku ndéem nekkoo it taraahu di ko gis innahu naka moom yaraaka dana la jis ihsaan moom nee na yonante bi ko xam alayhi salaatu wasalaam moo ko leeral nee mooy ngay jaamu yàlla rafetal jaamu ga ak pas-pas ba ak teewlu ga bu mel ne yaa ngi jàkkaarloog moom te itam bu fekkee gisoo ko moom mi ngi lay gis kon nga bàyyi xel ci gis gi mu lay gis yow ndegam yow mënoo koo gis ci sa bëti xol ba dara itam nga yàpp na rek moom foo yaa ngi war a sàmm àqam ci lam la dégal ak lam la ndax mu ne ni mi ngi jàkkaarloo yow maanaam ci wóor moom mu ngi lay gis donte yow gisoo ko wa diinu diine nag di talaasu mooy yi la yett maanaam diine ne ñetti xaaj ñi la al iman al ndax dafa ñëw ci addis ba addisu ji addisu yonente yëpp da caa ñëw ba noppi hmm? yonente bi jibril moo ñëwoon doon leen jàngal seen diine loolu moo tax ñu xam ne yett xaaj yi kon mooy diine xol bi jàppal aqwa xoraaka gën jaar dëgër yi say buum maanaam loolu mooy buumu lislaam yi dëgër yi nga xam ne boo ci jàppee rek jàpp nga fu dëgër dëgër muqadda matum lii lu ñu jiital la minal usuli ci ay cosaani fiq mooy nat bi aji dimbalee fii faroox yi ci seen i bànqaas xalal usuli ci àgg ga nee na daa am tuut lu mu bëgg a wax ci cosaani fiq bala moo dugg ci fiq ci boppam nga xam ne xam lii mu lay wax dana la defal ak jàppandal ci nga dégg atte fiq yi ñuy wax ci kanam buñ ko waxee luñ ci jublu alxukmu atte fi sharhi ci yoon xitaabu rabbina moo di wàqantew sunu boroom almuqtadi way aji sàkku fi alal mukallafi jëfi mukallaf uftunan na nga xelu xam nga waxoon nga àtte ci xel ne woon xel mu sell mi moo koy seer rek ba am moom ko tërale jàpp ne loola waa la mbaa jaayis la mbaa mustahil la loola àtte xel la woon atteb yoon nag mooy loo xam ne suñ boroom mi nga xam ne moo saña santaane moo sant mu kàllaf la lépp lu yàlla sant mu kàllaf loola mooy atteb yoon atte moom ba nga ko déggee mooy saxal mbaa maanaam saxalal mbir mbir mbaa dàq mbir ci mbir boo ne kaani daa weex su boobaa saxalal nga ak weex kaani loolu atte la soo ne basante weexut su boobaa dàq nga ak ñàkk weex ci basante loolu atte la léegi nag lépp lu bàyyi ko ci yàlla jëm si ci mukallaf yi war koo jàpp loolu mooy àtte bi yoon bi talabin ci ak sàkku aw idnin wala ndigal li wax ne bi talabin ci ak sàkku mooy la yàlla sant mukallaf ma mën naa nekk lu mu sàkku ci moom mu jëf ko jëf koo xam ne suñu ko bañ muy warugar iki julli juróom mën naa nekk lu ko jëfloo loo xam ne dañ koo sopp rek bu ko bàyyi itam tuyaaba mooy wàññiku ni ki julli fajara yu mel noonu waaye sàkk gi itam mën naa mu sàkku ci moom nekk bàyyil nàngam bàyyil nàngam joojee mën naa doon bàyyi gum doogu ne ko danga koy bàyyi ni ki naan sàngaraak mboole bi araam yi mën naa nekk itam bàyyiloo ko bàyyiloo goo xam ne gii bëgguwu ca ni loo xam ne su ko defoon ko sib doo nga yem ci waaye dugguwuñ ci aaye ga idunu ndigal ji wax nag mooy may ko ko sañ ngaa def nangam waaw loolu nag mooy li ñu daganal nga xam ne dañ ko wax ko lii bu la def ko bu la neexee bàyyi ni ki moom nga xam ne moo ko moom sañ na koo jaay sañ na koo bañ a jaay ak yu baree bari ci yi nga xam ci yu dagan defee nag kum doon ci yooyu yaar muy bi talabin ji wala ci aw idinin ji wax ji gën a wóor mooy mën naa tegu ci kaw sabab mën naa tegu ci kaw ab sart mën naa tegu itam ci almaanixu aji tere te moom lañu ñu bëgg a leeral ci li ci topp aw bi wadahin wala ci ak tëral li sababin ñeel sabab aw shartin wala ab sart aw di manhin wala boroomuk tere daa bëgg wane ne àtte yoon yi am na ci yoo xam ne dañ koo teg ci kaw kenn ci yett am na ci àtte yoo xam ne dañ koy teg ci kenn ci yett yi da gis àtte boo xam ne dañ ko teg ci kaw sabab àtte boobu nag la koy xamee rek mooy bu sabab si amee àtte boobu am waaye bu sabab si ñàkkee àtte boobu ñàkk mel ne buñ nee jurub kër wala xeet yi bahima yi nangam dagan na ci daganuk lekk ga ci misaal daa am sabab mooy rendi bu fekkee ren nañ ko dagan googu am bu fekkee ren rendiñ ko nga xam daa medd ci misaal kon dagan ga du amati xam ni kon loolu sababu si dagan nga mooy rendi ga sabab si amee àtte bi am sabab si ñàkkee àtte bi ñàkk charte nag mooy li nga xam ne àtte boobu nga wax dañ caa sart lii nga xam ne bu sart bi amee àtte am waaye mën nañoo dogane moom bu sart bi amut loolu du am ni ki warug julli dañ caa sart ak laab xam ne léegi bu fekkee laab jiitu na mooy tax julli gi wér waaye mën nañoo ne moom li fekk laab googu amut julli gi du wér aw bii man xin nag mooy boroomu tere mooy li nga xam ne bu dikkee day yëkkati àtte bi boroomu tere mooy boroomu yëkkati nga xam ne bu dikkee day yëkkati àtte ba nga xam ne saxoon na ni ki gisub dereti mbërëg nga xam ne moom la yëkkatee warul julli waaw nga xam ne waraloon nañ ci jigéen ji ci misaal julli juróom waaye bu deret dikkee daal yëkkati war googa loolu kon am na ci àtte yoo xam ne mel moom lay amee aqsaamu xukmi sharhi xaaji àtte bi yoon xamsatun juróom la turaabu yooyu def na leen sàkko maanaam li yoon di àtte ci mbir mënta weesu kenn ci juróom yi fardun benn mu ne farata la wa nadbun afu sopp wa karaahatun afu sib xaraamun ak aji araam suma ibaahatun topp ak daganal àtte yoon moom juróom yi la benn mu ne loolu day farata mbaa dañ koo sopp mbaa dañ koo sib mbaa dañ koo araamal mbaa dañ koo daganal fa ma moorun lu ñu digle jusima loolu dogoof na ca fardun mooy farata bu ñu diglee dara dogu ca xam ne soo ko defee am tuyaaba soo ko bàyyi am bàkkaar loolu farata la wa duunal jasmi bu àndute ko dogu man doobun mooy lu ñu sopp wusima loolu màndargaaleef na ko maanaam bu la ko digalee digal goo xam ne boo ko defee am tuyaaba waaye soo ko bàyyee lu tax nga am ca bàkkaar ni ki yu bare bare ci yu sopp ni ki julli naafilaak koor naafilaak yu bare bare lu mel mooy man doob xam ne boo ko defee am tuyaay waaye boo ko bàyyee doo ci am bàkkaar dun na yi boroomu tere rek yem ci te tere ga dëgërut maa dëgguwuñ ca makruhun mooy lu ñu sib waaw nee bu aayee aaye goo xam ne dëgguwuñ ci faaw nga bàyyi xam ne daal boo bàyyee lay gën waaye boo def ko it du tax bàkkaar war la ci loolu mooy lu ñu sib boo déggee nangam sib nañ ko mooy bañ ngaa def moo gën soo xamee ni gënut nga moytu ko ñu bindal la ci tuyaaba waaye soo ko songee def ko itam du tax nga am ci bàkkaar loolu mooy lu ñu sib wa ma xat min bu àndee ku war nag xaraamun mooy aji araam maanaam tere gi bu fekkee day tere gu war nga xam ne soo ko moytoo ñu fay lu ci tuyaaba waaye boo songee def ko ñu bindal la ci bàkkaar waaw loolu kon mooy lu araam ma zone wacc xëy lu ñu digle ñaari anamam nag mu baaxun mooy lu ñu daganal daal di tamaamun ak mat la maanaam loo xam ne boo nee naa def ñu ne waaw boo nee naa bàyyi ñu ne waaw xam ne sañ nga koo def sañ nga koo bàyyi kooku mooy lu dagan hmm. niki lekk loo sañ lekk mbaa naan loo sañ naan mbaa dem foo sañ a dem yu mel noonu yëpp lépp lu dagan rek loolu mooy mu baaxu lu dagan loolu nag boo ci yéene jaamu yàlla jaamu yàlla yéene gi nga ci yéene mën na koo soppi mu di jaamu yàlla waaye nag bu dul loolu lu dagan rek lay doon wal fardu farate xismaani ñaari xaaj la kifaayatun benn muy kifaaye waxee mun mbaa muy faratey jëmm na farate ñaari xaaj la léegi mu faratey jëmm faratey jëmm mooy kenn ku ne dalaa war xam ne bu ñëpp defee ba mu du tax sa jaan wàcc ne julli juróom bu ñëpp jullee te julliwoo ba weeru kor bu la waree ñëpp woor te wóoroo men yooyu tax mu jariñ la dara lu tax itam mu wàcc la kifaaya nag mooy loo xam ne bu ci ñenn ña taxawee rek ñëpp seen jaan wàcc bu ko ñëpp bokkee seetaan itam ñëpp bokk am bakkaar mel ne xeetali ku loru wala ab jullit bu génn àdduna buñ ko seetaanee kenn bañ koo waajal sang ko sang ko jul ko julli ko jébbal ko boromam yëpp fardu kifaaya lañ su ko ñenn ñi defee ñu des yéen daan wàcc na su ko ñenn ñi bàyyi ñëpp bokk am bakkaar ak lu mel ni sàmm xam-xam yu shariha am ñu ci taxaw ba géeju ci ku soxla mën a wëlbatiku ñëw ci ñoom loolu faaw war naa am ay benn benn yu ko def maanaam ab lim bu ko def bu ko ñëpp bokkee sàggane ñëpp bokk am bakkaar yi mel noonu nag mooy fardu kifaaya la mooy mooy yu mel noonu daal moo di fardu kifaaya wa yashmalu dina làmboo almandoobu mandoob sunnatan sunna bi zeyni ànd la teew na nee na léeg-léeg boo ne mën doog day yóbbaale sunna waaw ndax bo ndax léeg dañ dañuy wax mën doog jublu ci lépp lu bokkut ak farata maanaam lépp lu ñu lépp loo xam ne boo ko defee am tuyaaba rek waaye boo ko bàyyi woon doo ci am bàkkaar yëpp su day tudd mën doog su boobaa nag sunna dina dugaale ci biir waaw teew na buñu tasee ci béréb nga ne lii farata la lii sunna la lii mën doog la kon farata ja moo féete kaw sunna topp ci ci gën a dëgër mën doog féete suuf waaye nag boo jubloo ne liñ ñaar la rek lee lu war la lee lu warul la lu warul la la war nga tudd ko alfardu farata la warul nga tudde ko mandoob waaw su boobaa ko lay jamono mandoob dina am baali sunna te it boo duggee ba ci biir sunna si sunna yi ñaar lay doon te am sunna soo xam ne tey doon sunna sa jëmm ju ne ni ki julli wetar xam nga wetar sunna su dëgër la waaye kenn ku ne moo koy defal boppam bu ñëpp jullee wetar su defoo ko du tax nga am sunna soosu ak sunna soo xam ne kifaaya rek la maanaam bu ko ñeen ñi defee mu daal doy ni ki nodd xam nga nodd bu amee ku nodd rek mu baax ak liqaam xam nga liqaam bu amee ku liqaam rek mu baax ci mbooloo mi ak euh, bu kenn nuyoo ci mbooloo kenn fay ko nga bu kenn fayee rek fay ko fay delloom nuyoo fardu kifaaya waaye bu kenn defee rek mu doy lu mel noonu kon jàppal ne sunna ñaar la sunna sunnatu haynin ak sunnatu kifaayati loolu nag mooy doon bu lim doon tàmbalee balaa dugg ci fiq bi mu dugg na ci téereb fiq bi kitaabu taxaarati lii mooy buntub fas faslun wa tax su sunu dana amee ak taxaaratu laab ga bi maayin ci am ndox salima moom mucc na mina taxayuri ci soppi ko bi shayin ci dara waaw nee na laab ndox lañ koy defee ndox mi itam day aajowoo mu ami sart mooy bañ a soppi ko ci xet wala ci couleur wala ci caf ka ci dara loo xam ne mën a sonn koo moytu bu ko dara ci luñ mën a mën a moytu soppee ci ba xet ga soppiku mbaa caf ka ga mbaa couleur wa rek su boobaa dana jeexlu ci wàllu jaamu yàlla su ko defee nag isa taxa yëran dem soppikoon na bi naj ci sobe turixa kon tuureef ko aw taahirin wala mu soppikoo ci aji laab xat saluxa kon yiw na li aadatin ñel aada la soppi ndox ma bu fekkee sobe la ni ki am saw wala xayta wala deret wala sàngara bu demoon ci ndox ba nga mën ko caa xàmmee kon ndox ma tuur rek ci des ak ndab la boo ko soxlaa nga raxasoo bu fekkee nag la soppi ndox ma dafa laab ni kafe wala attaaya wala suukar wala leneen yi nga xam ci yu dagan ci yu laab yi su ba ndox ma laab na ci boo ko bëggee naan boo ko bëggee toggee boo ko bëggee sangoo sangum saabu waaye nag jeexlu na ci wàllu jaamu yàlla maanaam ba tey doo ko mën a jàppee mbaa sangoo ko farata mbaa yóbbu ko wanag mbaa dindee ko sobe bu la neexee ne yóbbu ko wanag dindee ko sobe ba jëmm sobe sa dañ waaye day aajoo nga awalewaat ci ko ndox ne mi ngay jàppee ndax boo ko dindee lu bokk te ndox mi nga war a dindee itam jëmm jaay dañ waaye atte ba tey illaa ida laazamahu ndari ndem taqoo naag moom fil xaalibi ci la gën a bari tamaxarati ni ki saleeñ fa mutlaqun kon ndoxum mutlaq la waaw nee na bu fekkee la sotti ndox ma de loo xam ne moom ndox yàllaa leen boole duñ faral di tàggoo waaw ni ki saleeñ saleeñ mooy ban bu xongu cooy ban bu xongu cooy bu fekkee ndox ma de caa taa day tax ndox ma xongu cooy wala boo ban bu ñuul kukk ak lu mel ne ay walax njaan nga xam ne sax far ci ndox mi la juddoo wala lu mel ne mbaala mbaal maanaam lépp loo xam ne moom yàllaa ko boole ndox bu soppee ndox ma tam du ko tee baax baax na ci wàllu jaamu yàlla baax na ci wàllu aada kat daa ibi ni ki aji ruy aji ruy mooy bu fekkee dafa defoon aw donj gannaaw ba mu ruy ba def ndox it ni ki glace glace bu ruyee ba def ndox itam bu sottiwul rek baax na mën nga koo jëfandikoo faslu li ab dog la fii faraidul wudu yi ci faratay njàpp faraidul wudu yi faratay njàpp yi sabaxatum juróom ñaar lañu